ñeenti junni yi ñaawteef ci màggu borom baat ba wax laa ilaha illallah dinay waral jigéen yàlla ak firdawsi ak dem ca péyam ba lo mën def ci sa adina ak lum ñaaw ñaaw bu fekkee ni laa ilaha illallah boobu mu nga mujjee wax aljana ngay dem direct li yeneen ne ku kay wax dee ca doonte ku la dinay dem jinaanillahi ndeem dee na ca baat ba baat boobu ngeen am chance wax ba pare noppi dina xam ñepp ñoo bëgg suñu borom far seen bakkar ci yeen rabbi la ilaha illa la rabbi la ilaha عسل رب لا إله إلا الله مدى الدهر والأيام والذنب حاصل رب لا إله إلا الله وصاح غراب البين مال الرحلة رب لا إله إلا الله مدى الدهر والأيام والذنب حاصل لا وصاح غراب البين معلم رحلتي رب لا إله إلا مدى الدهر والأيام والجسم عابد رب لا إله إلا سوى الله والرحمن خالق جسدي ربي لا إله مدى الدهر والأيام والقلب شاكر ربي لا إله إلا الله سواه ومنه الدهر جلب معيشتي ربي لا إله إلا الله لقد داهم اشترى ربي لا إله إلا السماء والأرض أية يأتي ربي لا إله ولكن ما أرجو تلافي ربنا ربي لا إله إلا وإلا أيها الكتيب شكوى إلى الله كربتي ربي لا إله إلا ومالي خير الله جعل كسرتي ربي لا إله

fàtte bu leen fàtte bu fekkoon ni ba ñu nekkee ci àddina daanañu déglu kon tey feneen mooy su doon suñu kër budul fii ñu déglu ñu bett sang bu tedd boobu si Hajji Malick ci déeyoo gi mu doon déeyoo boroomam way yi neex na neex na ci xol mais ñu déglu li muy wax boroomam dafani fala budda min shakwa ila allah qurbati manuma ñàkk a njàmbat sama borom sama tis, parce que famaliya ya jaabiru ya kasrati dana amul keneen ku dul sama borom ko xamni mo mana jubanti li dëng ci man Wakar qar'iya babal ghairi ya rabbi lam yufid lidaka sarafna nahwa babi tawijadi mu nekk yàlla ma ci beneen buntu di ko amaluma benn njariñ moo tax buntu képp laa man bi muy xalaat ci dunduk doomu ak lim ci bi ni mu ci la ni والأيام والذنب حاصل وصاح غراب البين معلم رحلتي نير أدنى كيخنا بسي ما سنو بروم ورسقلون پر مدندو كدانا كو جيخنا تما جوي دلف أي باكار مدى الدهر والأيام والجسم عابد سوى الله والرحمن خالق جستتي نير جمعنا وينا بسي ما ورونا دفتي أدنى دانا كجيخنا te sama yaram mu ngi jaamu keneen ku dul yàlla te yaram wi yàlla moo ko bind man a dëhru wal ayaamu wal qalbu shaakirun siwaahu wa minhu dëhr jalbu maishati nee na jamono wëy na ba si ma waroon a def ci àddina daanaka jeex na te xol bi mu ngi sant keneen ku dul yàlla te li yaram weeg xol bi yëpp di dundee yàllaa ko leen ko jox mu ne laqad daa umrun saatun minhu tushtara bi mil'i sama wal ardi ayata dayati sànq naa dund goo xam ne benn waxtu rek ci dund googu boo ko bëggoon a jëndee wurus ak ngalam gu fees àddina sax manu ko man sànq naa walakinama arju talaafiya rabbina waaye maa ngi am yaakaar ne suñu borom dina ma dabaatal ak yërmandeem wa illaa bu ko deful fa hab nii haalikan ay halkati nee na jàppe ma ko alku gépp alku nde Cheikh Ahmad amoon na benn taalube bu farlu ci jaamu yàlla bu ñuy wax Serigne Daaro Assane Ndiaye ci mujjug dundam magu Cheikh Ahmad bu tudd Mamor Jaara dafa yàble ci moom yabal ndaw ci Serigne Daaro Assane ne ko sang bi dama la namm ndax doo ma seet sëriñ daaro boobu bijjaaw na mu rocc benn bijjaaw ci karaw mi jox ko ndaw si nekk demal yéetal ma ko Mamor Jaara nekk kii daal moo ma gane si te bi mu ñëwee ba léegi talatuma dara lu dul nu ki ma indi woon ci àddina parce que bijjaaw boobu is a message it just mean your life is ending That's all. waaye nag ñoom ñu ngi génn ci école koo xam ku xam yàlla ya. la woon nine days before yonent ya bi di pass, Yalla dafa wàcce benn aaya alxuraan boo xam ne moo mujj wàcc ci alxuraan moo mujj wàcc muy wattaqu yawman turjauna fihi ila allah if somebody asks you ban verse moo mujjee wàcc ci alquran this is the one nine days before the Prophet Muhammad alayhi salatu wasalam passed Wattaku ragal yawman bis bi nga xam turjauna fihi ilallah ci lañ leen dello sen borom suma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ba kenn bu nañu fay li nga doon def waxum laa yusuna moon keroog duma ken. Sayyidina Seydina Limaamul Mahdi wax na ni bis la boo xam ni kullu nabiyyin wa rasul Wawali, wali amul yonent ak wali bu ñeme bis bes bu ràklu la bes bu mata a xel la Chaman Bamba day xalaat ci boromam di xalaat ci bes bobu ak li ko may lepp mu bind di wax ak boromam wax liyal jisma hay suruxu faraqani في القبر لا تبلين هدري الله وكن نصيري أنيسي حينما دفن جسمي فصرت واحدا ثم يالله تكلون من يالله lii gis ma maa ngi sàkku ci yow nga sàmmal ma yaram wi xay li yan ba yaram wi bu mu nëb wa kul nasiri anisi xiinamaa dafanu gis ni fa sirtu waxiidan sama yallaahu mu nekk bis ma suulee fa ma nekk dinaa fa soxla ndimbal yàlla na nga doon kama fay dimbali dinaa fa wét yàlla na nga doon kama fay wéttali nekka laa tadd mu man na ma ay yu raw weexu nii bali fiyan kullama axshaahu yàlla yàlla dimbali ma sama biir bàmmeel bul ma fa booleeg lu may tiital Cheikh Ahmad moo koy ñaan boromam bés bu mat a xel la buñ la jëlee ba denc la bay dem yonent bi alayhi salam nena nee na ñu la doon yóbbu seeni ndëggu dan yi ñuy delloo da koy dégg bu ci bu ñu deme rek nga deg kaddu guy joge ci suñu borom ne la dahabu wa tarakuka wa fi turabi dafanuka walaw baqaw maaka kama nafanuka ne la dem nañ bayyi la fi dañu gas ba mu xol musul mais buñ fi déssone ak yow sax duñ la maral dara rabbul izzati wal jabaruti nga amal affaire tey keroog coono yi ngeen di daj ci diini Ousmane ma kumba yéen ñëpp ñu jóge nañ ci ay place yu bari teew ci jotaay bi léeg-léeg di nga daj ci ay coono yoo xam ne danga naan mais est jar na ko li may defal doomu aadama est-ce que jar na ko da tere woon ma arrêté lépp dem dund sama noflaay am sama happiness mais bis boobu ngay xam sonn ci diine ban njariñ laa am Seydina Limaamu nee na dee kaas bu rëccu la boo xam ne bakken bu ko naan dina rëccu bu dee lu baax nga daan def di nga rëccu lu tax yokkoo woon lu baax li nga daa def bu dee safaan nga daan def di nga rëccu foo xam ne rëccu fa amal benn njariñ est-ce que xam nga ni bés bu Azraïl malakul Mauti, Depare pour ñëw jël si sa ruux Iblis bi nga xam ni moo génn sunu maam aadama aljanna ak ay pexeem moom it day départ pour ñëw jéem xool lu baax li nga jot a tabax tabax ci sa dund yëpp nu mu koy màbbe imaan ak ngëm yàlla gi nekk ci yow nu mu koy salboo moo tax Maodo doon ñaan fana jinaa yaa xaaliqa sheytaani min kaydihi wasaala bil imaani nekk yalla yow mi nga xam ne yaa bind seytaane maa ngi lay muslu ci ay pexeem ak ñàkk ngëm yàlla avancé wu di dem pour rek nga nekk wéttalam ci sawar Ahmad Bamba nee na laa tamanu makaida seytaani qabla firaaqi ruuxi lil abdaani nee na fekk ruux gi génnagul ci yaram bi bul mosu wóolu ni li nga mucc ci ay pexeem li annahu waqtal mamaati yati shaxsan li kay yaxrimahu taati parce que nee na yaa ngi dund te bis bi ngay dee dina teew pour jéem a yàq sa jëf yu baax xañ la sa ngëm yàlla nga dee ci wet di nekk wéttalam ci biir sawara loolu tax mu lay advise nga nekk nit ku humble parce que in front of you am na benn station bu fa nekk boo xam ne boo fa egsee xamoo nooy réacté moo tax mu ne lasta yaa axi tafuuqu ahada féetewoo kaw benn doomu aadama waaye li jahdi khatimati amrika xanaa parce que nee xamoo ci loolu mujj moo tax sëriñ Hadi Touré mu baax ma ba muy dénk ba di maam Abdou Aziz Dabaax nga xam ne moo ko yaral boppam ba pare taalibe bi yéem ko ndax e ay jikko sëriñ Hadi moo jàngal maam Abdou waaye maam Abdou ay e jikkoom dafa yéemoon sëriñ Hadi ba tax mu bindoon xasida boobu di wax ci moom naan na ngeen déglu tey jii ma wax fii meloom bu kenn wee dinax maa ko yar maa ko xam bi mu waxee jikko yi nekk ci moom ba pare daf ko advice ne ko saxal ci woyoflu te bul dox di te bul wut maqaama ndekoon am dafa am yoo xam ne doomu aadama da koy sàkku léeg-léeg du xam fu muy jaar pour am ko àddina am na loo xam ne boo ko bëggee danga koy wuti am na loo xam ne boo ko bëggee danga koy joxe am na loo xam ne boo ko bëggee bul ci am soxla xam-xam boo ko bëggee danga koy wuti alal boo ko bëggee dee ko joxe Sëriñ Fallou moo daan wax naan joxe du tax a ñàkk day rafetal amin mu ne boo ko bëggee xam dangay dangay da ngay da sa karawu bopp ak sa karawu yéen karaw gi doo ci joxe moo tax fi mu nekk du fi jóg. mais karaw gi boo ko watee day ñëwaat te buy ñëwaat day gën rafet mais am na loo xam ne boo ko bëggee bu ci am soxla te mooy daraja moo tax mu nekk saxaar ci woyoflu bul dox di rëylu te bul wut maqaama nekkut doo ko am nekk ku aw yoonu tiijaan du wooteeg maqaama du wooteeg wilaaya bu doonee ku xam du fa boppam teg ci kaw benn naw leen du leen teg ci suuf suufit ni buur ak dagam moo tax Seydina Imaam daan wax naan duumu alal xusuwaay wal xuduwaay wal tawaado na ngeen sax ci toroxlu na ngeen sax ci wàcc seen bopp da ngeen ragal yàlla ak i mbugalam maam Limaamu Laahi danoon jaamu leen bu leen defi noonu dimbalante kon lu nu ñaan dina am bi suraati bul di xaste bul di bonal yoonu kenn bul tilimal jëfi kenn kon nga jubal yoonu Seydi Saadati bul di séntu waa ji la sut bul di xeeb ci waa ji nga sut yàlla moo di buur bi fi sut moo di zul qahaarati booy xalaat ci sa life ak the very little time bi nga jox sa boroom te xëj na sax sellul xam ëllëg yow man xiyaam ni mu mel bis boo xam ne yonent yi set ci ay bàkkaar sax dañ koo ragal moo tax imam Busayri waxoon yonent bi nekk yaa shafian fil muznibina ida ashfaqa min xawfi danbihi buraau nekk yow ramukat bi nga xam ni yaay taxaw pour sàkkul saw xeet yërmande ci bis boo xam ne al buraa mooy ñi set ciy bàkkaar muy yonent yi sax dañuy tiit bo ci xalaat da ngay gis ne yërmande yàlla rek rek rek rek moo la ci mën a génne moo tax mu waxoon ne in lam yakun fi maadi axidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatan xadami mo ne yonente bi yowmal xiyaama bu téyewul ci sama loxo te du ka teg ci samay jëf ci mbaaxam rek la kay teg tarxiis naa te sànku naa yàlla nag boo bëggee yërmandeem ke ci ab soppeem mooy rasulullahi alayhi salatu wassalam maulana Cheikh Ibrahim bo xole mayam yu tedd yi mu tuddu ci wasulu jamii masikin bi xabliyaa rahaqahu man lam yukaddib bi rabbiyaa wajaw bi fayafin fil ma'arif lam turam faqad qasara al aqtab an darki sha'wiyaa fan ke jele mun bi fadli ilahi ilahi nasi jalla jalaluhu wa hubbi rasulillah ta'ala nabiyya dafa wax ni wusulu jami'i masikina bi habliya mo ne nga xamne ñoo tey ci sama boom sen ak ak ci sen borom tahaqqaqahu man lam yukadib bi rabbiya mo ne ko xam yalla xam ay mayam xam katanam leer na kan ni ak bu boobu day am wajaw bi fayafin fil maarif mo ne xuus ku ma ci ay saxaraay xam-xam yo xamne ne waxuma doomu adama du ci àgg sax mais du ko sax bëgg parce que day xamne ne mom da naka is impossible faqat qassaral aqtaabu mu ne aqtab yi gattan lu lañu andar ki sha'wiya ci dat ma ci fi ma àgg waaye nag maa ngi bi fadl ilahi nasi ci mbaxu borom jami jalla jalaluhu wa hubbi rasulillahi ak bëgg rasulillahi taha nabiyya lolu mo waral jotaayu bu mel nii am solo ndax dafa yokk suñu cofeel ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ndax dinañu ci jàng loo xam ne moo yokk suñu cofeel ci moom te buñ ko bëggee rek am ab cër ci yërmandey borom bi waaye nag yonent bi aleyhi salaatu wassalaam neex naa waxtaane naxari li tax mu neex a waxtaane li al imaamul Busayri wax dafa wax ni lenn daal laa dul accepté nga di ko wax ci yonent bi mooy li nasaraan yi wax ci seen ab yonent Isa ne yàlla la mu ne rasulullahi du yàlla te du mos doon yàlla mais nee na loolu boo ko tegee fële leneen loo xam ne lu baax loo xam ne boo ko waxee ci doomu aadama bu doon tagg ci moom rek bu la neexee wax ko ci moom hun nasara fi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 foo fëhiya ajallu ma bi bihi baada adaa il fardi fal tënt bihi Sëriñ Tuubaa ko wax ci Masaalikul Jinaan nee na boo defee say farata ba pare amul looy def ci àddina lu gën a foor ci yàlla julli ci yonent bi alayhi salaam saa yoo amee chance pour def ko rek bul ci sàggan dama daat hun nasaara fi nabihimi waxkum bima shitta ma tan fihi waxtakimi mawlaaya الرسول إلى قدره معشير سبت قدره آياته seen ab yonent wax kun bi maa shitta mat xan fii wax takk ni boo paree nga xool rasulullahi lépp loo xam ne boo ko waxee ci góor yàlla mu doon tagg ci moom wax ko ci moom fansub ila zaatihi maa shitta min sharafin nee na lu la neex ci tedd nga askanale ko jëmmam ju tedd ji wansub ila qadrihi maa shitta min izami lépp luy màggaay askanale ko dayoom fa inna رسول الله باسكو مباخو يوننتبي ليس له حد أم ليميت فيعرب عنه ناطق بفم نيت منوكو واخ سي لامنيام من لو ناسب قدره آياته عندما أحيا اسمه حين يدعى أي mayam bu mengoo won ak tolluwaayam turum rek boko tuddé lu démon dekki motax mu neex parce que lu bax lu bu wax ci mom mais tam ku na xaree waxtaane la li tax mu na xaree waxtaane mooy kàddu yi moo dul doy pour man ko melal xelum doomu aadama yi tuuti na ci mën a imaginer martabaam Cheikh Mat dafa wax ci raaya ne yonent bi wax wal wax wal najibul ladi في وصف خلقته وخلقه قيل تسجع وأشعار نينا موي كو تيد كي nga xamni façon riding style bu nek bind kat yi use nañu ko pour jëm kamelal ولم يجد من ذوي الإفلاط والبلغاء بالسجع والشعر مما حاز معشار نانا ويكات يو مكي ني غنا الكون تي بند كات ييب لي ني بند تي رسول الله ماتول وان تن ci li nekk ci moom awlul fasaxati turan bi tana madaxu walaysa yudraku bil aqwa bi tayyaaru nee na ñi gën a am éloquence ci àddina lu ne wax nañ ko ci moom waaye rasulullahi géej la te ñoom ay kopp lañu yor mu ne kaabun wa xassaanu wal buusayri qad bararu wa kulluhum cheruhu nuurun wa asraaru nee na kaabun mu zuhayri jàmbaar la xassaan ibnu thabit jàmbaar la muhammadul buusayri jàmbaar la kenn ku nekk li bind ci rasulullahi leer képp la waaye fa mablagul ilmi fihi annahu basharun wa annahu duunahu wa afkaaru nee na fi xam-xam yam ci rasulullahi mooy doomu aadama la du malaaka du jinne du yàlla waaye nag xelum doomu aadama tuuti na ci mën a imaginer ab doyoom looloo tax wax ci moom di jafe